rahmaani rahiim barke borom Tuubaa ala ahli bima in jaari wa maskani sallim minal fujaari wabnun ala ahli bima in jaari wa maskani sallim minal fujaari wabnun ala ahli bima in jaari wajjihalhu rabbi minnan muhajjala jalibatan li minnanin muhajjala ya hayyu ya hayyumu kulli yan muji antal mujibu wal karimu wal khari ilayka waxdaka faransu min siwa fakun bisaaka haidi illa huda waliyakun rabban waliyan wan nasir ولجميع المسلمين يا بزر وكسرا خيراتي هذا بلدي ورزقه والتكفيه عندك دي والتو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit mbokk taal bi ñoo ngi nuyu ñëpp kenn ku ne ci turam ak ci santam di jiite si nuyoo mi sëñ Muntaxa Mbàkke mi xam ne moo fi nekkal Xaadimu Rasuul suñ borom ku dal fanam lool te meek ak di ñaanal Cheikh sëñ Cheikh Mbacke moom sëñ Ismaïla Mbacke xalifa Mamour jaar boroom saam suñ borom guddal fanam lool te meeg ak wér di ñaanal suñu bunt ci Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul di Cheikh Abdoulahi moo ibnu sëriñ Modou Assou ibnu sëñ Mor Soxna ibnu borom saam suñu borom guddal fanam lool te meeg ak wér buñ diggee tey nag dañuy ñëw doon yaatal ak yëgle moo journée xasaayid bi nga xam ne dañ koy def at mu jot du am ndigalu sëriñ Mountakha mi fi nekkal sëñ Tuubaa da ci am ndigal tamit suñu bunt ci sëñ Tuubaa mooy Cheikh Abdou Mbacké mi nga xam ne ci keppaaram gi lañ teew ji tey muy journée xasaat bi nga xam ne waa mi daayira Miftaahul maram Maraam soppay Mamour Diarra borom saam ñoo koy defal an ma jot di ko defal sëñ Tuubaa Mamour Diarra sëñ Saliou ndax ñoo ngi koy def di ci sàkk ngërëm la sëñ ak sàkk ngërëm Mamour jaara di ko def it di ci ñaanal Serigne Saliou Mbacké suñ borom yokk ay leeram te taas ñu su barkeem tey jii nag fukkeelu at bi ak juróom-ñaar muy di septième édition ñu ñëwoon doon ko waajal muy ginaaw bu gàmm ba noppi du tombook ci weeru tubaab muy dimanche le le le 23 octobre ñëw doon doon ko yaatal doon ko yëgle ci mboole mu muridi ak mboole mu julli di ak mboole mu taalibe yi képp ku naan laa ilaha illallah muhammad rasulullah ñu la yëgal bis boobee di ci jiital nag rawet na axlu xasida ñi nga xam ne maanaam ñooy woy xasida te bokk ci axlu xasida ci seen jëwriñ sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Sow Mbàkke doo ci di ci woote win kilifa diine yi ak kilifa aada yi nga xam ne yàlla dogal na at jot daan nañ ko ànd ak ñun daan teew ci bis ba daan def seen alal ak seen doole kon buñ nee ci kër Cheikh di ci woo sëñ Cheikh euh, sëñ Cheikh Ndiaye Mbengue mi nga xam ne at ma jot da ciy teew di xalifa sëñ Modou Moussa di ci woo tamit sëriñ Mor Talla di xalifa sëñ Ablaye Ndar di ci woo tamit sëñ Abdou Roqee Fall di xalifa sëñ Mortala Fall di ci woo tamit ah sëñ Moussa Mbar di jëwriñ sëriñ Fallou Fall di woo tamit sëriñ Fallou mi nga xam ne moom mooy xalifa sëriñ moo Modou Aminta Fall ñoo ngi ci woo tamit soxna Maam Fall di taaw sëriñ Mortala ndox ndax saa at mu jot daan nañ ànd ak ñun ak liggéey bi ñu ngi leen koy fàttali leen njëgal bis boobu nga xam ne daan ci daan ñu ci ñaanal daan ci ànd ak ñun. di ci woote mboole taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ak li wër réew mi bu mboolem membre boo xam ne bokk na ci daayira Miftaahul Xuyuuril Maram ak mboolem soppe yi daayira Miftaahul Xuyuuril Maram yi nekk Dakar li ci mel ni nekk Touba ak li mel ni nekk Njaaréem li ci mel ne membre yi nekk ca Kaolack li ci mel ne membre yi nekk ca Maroc li ci mel ne membre yi nekk ci Turquie li ci mel ne membre yi nekk ci itali li ci mel li ci mel ne membre yi nekk ca farance li ci mel ne membre yi nga xam ne ñoo nekk ci Côte d'Ivoire di xamal ne bis bi ñëw na mbooleem loo xam ne taxawaay boo xam ne daan nañ ci taxaw an mu jot ñoo ngi leen di fàttali di leen ci soññ ñu taxawee ca noona di ci wooti mboolem jànkat xasira yi yoo xam ne tamit daan nañ yëkkati ca bis boobee di ci wooti mboolem eh, daara alxuraan yi nga xam ne daan nañ ko ànd ak ñun lu ci mel ne daara Serigne Aliou Xawaas Amar daara Serigne Ousseynou Fall ak daara Jalibul Maraaxib bu sëñ Isaaloo ak mboole mboolem daara yoo xamante ni ñoo ngi ci biir dëkk bi te daan fa teew daan fa jàng da ci woo tamit daayira Serigne Cheikh Bousso moom tamit daan na ci teew sak at mu jot daaraam du ci woo tamit mbooloo mi rajaskat yi nga xam ne ñooy rajas ak mboolem kuréel xasida yi xam ne ñooy toog du kuréel du ci woo tamit mbooloo mi euh, mbokk gi nga xam ne ñooy taxaw maam gone yi ñi sant mbaw ñi sant Diop ñi sant ñang ñi nekk Kuure ak ñi nekk baari ak ñu nekk euh, Paalén ak euh, euh, ak gaawaan ak ñëpp fa membre nekk rek ñu ngi lay fàttali ne leen maanaam bis bi ñëw na ni ñu daan taxawee at ma noonu lañ ci taxawee programme bi tamit ni muy tëddee noonu lay tëddee buñ xëyee daan jàng alxuraan wàcc kaamil buñ baree jàng na xaseer yi daan jël buñ jëlee ba ginnaaw tisbaar ñu séddale xéwal yi buñ baree jàng na xaseer yi tamit danañ continuer yeggale bis bi ba ginnaaw gee incha suñ bi daal di ñaan yeewu mboole at mu jot ren nag di dix-septième édition bi di fukki fukkeel at beeg juróom-ñaar bi ñu ngi koy jël di ko dibbee Serigne Modou Abib euh, Serigne moodi Kiimaan Mbacke mi nga xam ne moom mooy euh, moom moom Serigne Abdou Mbacke borom dër bi di jëriñ fii lenn ci axlu xasida ndax saa su nekk rek taxawaayam ci euh, Mbacke ci axlu xasida yi ak ci kuréel yi gis nañ ko ak kóllëram bi nga xam ne am na ko ak waa daayira Miftaahul Fawzayni wal Maram ndax lépp loo xam lu daayira bi def la doole ma nga ak jëmmam ak teem ak moo tax maanaam ren bis bi ñaar ki jël daal ko koy dara jaale moom tamit ñoo ngi koy fàttali bis bi da ci woo mboolem njabootam ak mboolem taalibe suñu Abdou borom dër bi ak mboolem taalibe sëriñ sa euh, sëñ sëñ Modou Kimane Mbacke gi yëpp da ci woo waa Daaru Rahman ñëpp da ci woo tamit waa Daara Taysir ñi nga xam ne yàlla tax yàlla def na ne ñoom ñoo taxaw taxawaay jiwriñ fee ca kër sëñ Modou Kimane Mbacke lu jëm ci xasida ak ci kuréel ak ci reeskat yi jànkat yi lépp ñoom ñoom ñoo ko yor ñoom di ñoo ngi leen ci woo bu baax a baax te xam ne bis bi tamit ñoom tamit seen bis la ak kilifa diine yi fa nekk yëpp ñi nga xam ne daan daan nañ teew ci bis bi daan seen alal ñoo ngi leen koy fàttali ak kilifa aada yi ñoom ñëpp nga xam daan na ci def di ci seen alal ñi nga xam bi nga xam ne moom lañ daan def maam tamit teew na wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. nag ki daayira bi nga xam ne mooy xale yi formé ko di ko fas yéenewaat defaat ci at miñ ko daan def muy bu ñu gàmmoo ba pare ci ginnaaw ray bari kër Mamor Jaara waroom saam di leen ñaanal yàlla nañ ko yeggalee ci seen sago yàlla nañ ko commencé bisimilahi yi rahim eggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin fam daan jaar yàlla na jaar fu ko raw sax ci barkeb sang bi ma jàkkaarloo ndax yaakaar nañ ko di wax ci jigéen ñi nga xam ne ñoom laa bokk daayira bii mu yaayu tuut tànk yi nga xam ne ñoo yor tuut tànk yi ñoo leen jaboote ñoo yor seen lépp natt bii bu ñu ne ay ci kenn ku ne sa yaay dina jóg fenn fu ne danga fa taxaw ba yàlla def ñu def natt bii te dara taxul li may sëriñ Tuubaa ak moor Jaara yàlla nañu yàlla fayal ñi ma ko bokk ak muy jigéen ñi yor njaboot gi di ñaanal Alaaji Mbow bi nga xam ne nag tey moo formé woon daayira bi te daanaka doon doxal sëriñ Saliou Mbacke ndax Alaaji daanaka sëñ Saliou Mbacke la ndax yi ba leen di formé tuuti nañ lool naqari nañoo yor lépp Alaaji dégg ko ànd koog gone yi ànd koog aram yi di ko jàppale tey ji ba bis bii ñëw tey ji dem ba mënatut aram yi taxaw muy ñaan ci kattanal borom saam fii ñu toog aram mi fi mu bëgg a yegg ak daayira bi yàlla na fa yegg yàlla na fa yegg tañ fekki ko tañ tal ko tañ ànd ko moom ci barkeb sangab sang yii ñu toog waaw ndax daayira bi kat wax dëgg yàlla am na am na dëgër laay dañ naan sañu fondement bi daa fort ndax ciment bi daa xor fondement bi daa dëgër ndax ciment bi daa fort ki fondement daayira bi moo foral daayira bi ba daayira bi egsi fii muy sëriñ Abdou Mbacke sëñ Modou Assou Mbacke mii toog yal na ko fi yàlla bay waaw aram yi nag wax dëgg yàlla am daal man mënu ma koo fay ma koo fay ndax dama koy bàyyee yàlla ak yërëntu bi ak Serigne Touba ak Mamor Diarra borom saam ndax man dara ñuruma lu may sëñ Touba rek ak Mamor Diarra ak maam Cheikh Rafal ndax damaa fekkoon samay waajur di ci yëngu ma nekk ci ba nëgën si mu dugal ma ci biir nag te fëkkatalu ma fu mu toll fu nekk na ma meer faama yaay def li yaay def laa kon maa ngi ñaan ci daayira bi xale yi nga xam ne ñoo ko formé mu ñoom àll yu ñoom ak ara ñoom ak ñoom ñii yal yàlla yeggale fi ñu ndax yoon sëñ Tuubaa de amut gàllankoor moom ku ko bëgg a gàllankoor moo moo yaa awut yoon yi waaye boobee ci yoon wi doo daanu doo teqatalu ndax moom mooy téyel boppam yoon wi kon maa ngi ñaan de di gàttal yàlla na fi yàlla bàyyi njaboot gi bàyyi fi suñu xalifa bii di sëñ Modou mi moom sëñ Mor Soxna sëñ Abdou Mbacke mi toog yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu yàgg ci suñ kanam ñu yàgg ci ginnaaw suñu njaboot di sàkku ñaan nag ki njaboot gi ndax ñaanam amal nañu njëriñ lool billahi min alsheytaani irrajim bismillahi arrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina wa maulana muhammadin nabi lu mi wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa sallama taslima wa bi kitaabati ya rabbi rabbi kulla mutaaliin li wajhi rabb wa bi kalaamiya wa bil ishaara ihdi muridan yatlubu linaara salli salaatan tajmacu alxayraati muxjilatan dalaa'ila alxayraati ala alladi li xaada yowma aljumuca maa lictamaali min munan wa jamaa wahab lahu ya rabbi yowma aljuma fawqa almuna maa alladi xad jama lilmuntaxa kutub maa yasuruhu bila nihayati wa xidmati taqabbala yassir li sayidi alwara maxtaara ya baaqiyan jaalahu muxtaara yallaahu ya qaadiru ya muqtadiru ya man ilaya juuduhu yabtadiru asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ci turu suñu sang bu tedd bi suñu kilifa di sëriñ Abdoulahi Mbacke moom Cheikh Modou Ansou Mbacke euh, ngi nuyu mbooleem euh, mbokki taalube ak fépp fu ñu fi mën a nekk mbokki taalube yi fépp fu ñu fi mën a nekk ñu ngi leen di nuyu ci turam euh, te di leen sant te di rafetlu bu baax jéego yi nga xam ne daairatu miftaaxul xuyóori wal maraam soppey maam Maam Mor Borom Saam mi koy wéyal di ko doxal mu mel ni dañoo toll ci fukkeel ak juróom-ñaareelu euh, ndaje walla euh, daj daje boo xam ne dañ koy def ngir euh, dundal xasida yi loolu nag day mel ne bërëb bi di bérébab leer muy kër sëriñ moo Astou Mbacké gi nga xam ne ku ko xam-xam ne lépp lu ñu fi def li ci jiitu mooy alquran ak xasida dafa mel ne sax bi ngeen di soog a ñëw dangeen a fekk euh, ñu yore woon njàngam alxuraan bi ño noppi sëñ Moustapha Ndiaye mais ak njaboot ak sëriñ bi jiite ko ñu ñu toftal ci xaside yi ba ci gannaaw tàkkusaan gi la ko sëriñ bi tëj kon buñ ñëwee teew fi ngir euh, yëgle siiwal lu euh, jëm ci bisab xasida day mel ne loola liggéey la boo xam ne dafa lëkkaloo sëriñ bi di ci am cawarte te di ci sant bu baax te di ci sant ñi nga xam ne ñoo séq liggéey boobu dale ko ci Euh, aram mi soxna Fama mii mi nga xam ne moo jiite soxna yi seen taxawaay bi nga xam ne taxawaay bu ràññeeku la ci biir njaboot gi nga xam ne ñoo nekk Coude Ba rek la ko wër euh, di nekk liggéey bu sax boo xam ne liggéeyab xéewal la liggéey la bu sëriñ bi gërëm ndax euh, boo demee ci lu mel ne tasawudu sixaar rek danga fay fekk sëñ bi di fa rotal ay bayit yoo xam ne bokk na ci fa kullu man baadara dara sigari ila alhuda staraha waqta alkibari képp koo xam ne bi mu nekkee ndaw daw na fëx na euh, jëm ci ak njub bu nekkee mag rek day daal di noppalu kon dafa mel ne kon jataay boobu nga xam ne dañ fay jotaay dafa bokk ci lu ñuy wooyee majalisu saada day wuuteeg euh, jataay yi nga xam ne sëriñ bi dañu koy tee teetloo muy majalisu shaqawa wajitani bu majalisa shaqawa la ñu sëriñ bi wax dee leen teet jotaay yi way texe di te jotaay boobu ñu jëm incha allahu bokk na ci jotaay yi nga xam ne Euh, ki ñu gën a yaakaar mu nekk ca boppam yoon bi te ñëpp di ko xoole bëtu Cheikhul Khadim bu ñëwoon day mën a toog ci biir jotaay bi suñu kilifa gu tedd gi nga xam ne lu baax rek ko ko ñor ak fépp fu ñu ko mën a defee nag bu rombee jotaay bu mel noona mën na faa jàdd toog fa bokk kook ña koy def kon loolu mm, euh, lu rëy la lu màgg la lu sel la loo xam ne sëñ bi da koy bégee euh, ñu ñëw fii ngir yëgle ko fi ñu ñëw fii ngir doore ko fi ndax barab la bu barkeel boo xam ne Cheikh Abdoulahi Ahad Mbacke ku ko xam ci yoon wi xam ne bokk na ci ñi nga xam ne euh, adduna bi xam giñ xam yoon gi moom bokk na ci li ko waral ndax positif bu mu amoon taxawaay bu mu amoon ci di soññ nit ñi euh, di di di di leeral nit ñi Sëriñ Tuubaa li mu wax ci xaside yi ba nga xam ne jëmm ju tedd jooju njëkk muy nekk xalifa borom Tuubaa ñëw na ci barab bi mel ne da doon waajal boppam fanaan fi ñetti guddi kon ndegam kooka moo ñëw fii di fi di fi barkeeloo di fi yaakaar kon ku dul moom ak loo mën a jëm lu baax boo xamee de da nga ñëw ci barab bii doore fi sab liggéey ndax boo ko defee lépp loo jublu dana barke te lépp loo jublu dana àgg te lépp loo jublu dina mat kon alhamdulilah bi ngeen seen xel ngeen am xelam lii ngeen tàmbali ci at mii ne yàgg ngeen ko def wante nii ngeen ko defee ànd ak mbokk presse yi nga xam ne ñoom it ay ndaw lañ yoo xam ne yéen ak ñoom yéen a bokk liggéey bi ndax bu leen neexoon ñu dem ci leneen ndax am na yeneen yu ñu mën a dem wante dañoo tànn ànd ak yéen ñëw siiwale leen liggéey bi kon ñoom it ak ñun ñoo bokk liggéey bi kon tim sëriñ bi yéen it mi ngi leen di beral seen ak cant ak bopp ci seen ab taxawaay di leen ñaanal seen suñu borom seen i jéego gën a dox jëm ca kanam ngeen gën a maîtriser métier bi gën koo xam te gën koo jariñoo te gën koo muurloo kon daal sëriñ bi mi ngi sant njaboot gi nga xam ne ñoo fi teew sant njabootu kër gi nga xam ne tim képp fépp waaye jóge boo ñëwee te lu mel ni eh, soxal la ñoom ñooy njëkk taxaw jàppale la ba nga mën a gis sëriñ bi gën a mën a eh, boo gisee sëriñ bi incha allah lépp luy sa yitte rek lépp luy sa yéene ngir loola ànd rek bu soobee yàlla sooy boo nga rafet ca loola njort ndax moom lépp lu mu ànd mooy lu yàlla bëgg yonant bi bëgg ko sëriñ Touba bëgg ko sëriñ Mor Diarra bëgg ko ca loola lay dox ca loola lay dox ba fi baayam nekkee ba fi baayam nekkatul ca loola lay xiirtal ndaw ñi nga xam ne ñooy faral di ñëw ci barab bi te ñoom ñii di ay ndaw ñoom ñëpp ak ñu ko gën a nekk tout tànk xam nañ ko ndax waxtu wu nekk ñu ngi fi ñëw di fi ñëwaat te ñoom it sëriñ bi da leen di sant ay ndaw lañ wante ñu xam fu ñuy teg seen tànk lañ ba tey jii ci suba rek moo ci mujj bi ñu woote ab liggéey ca mbusoobe ñoom ñii ñoo ñëw moom ara ak ay tout tànkam la fa sëñ bi bëggoon ñu defal ko ko kon nag na ko wër ne lu mu bëgg tim fee muy liggéey soxna faama dana ko am insha allahu taala sëriñ bi mi ngi leen di sant di sant njaboot ak kuudi ga nag woy jur ya góor ña ak soxna ya ndax tim ñoo ubbil bunt njaboot ga bañ mën a euh, li aram bëgg a def ci ñoom mu def ko ci ñoom muy xasida yi borom tuubaay ak alquran nga xam ne euh, insa mii nga xam ne moo yore daaree alquran ji moom it ab liggéeyam tim ku ñu war a ñaanal la yàlla na suñu borom gën a yàggal ab taxawaay ba moom it li muy def ci ndaw ñi mel ne sëñ Moustapha Ndiaye mais ak njaboot ak sëriñ bi muy toqantal alquran ci xeli ndaw ñi ak xoli ndaw ñi loolu itam yal na leen yàlla doole taxawu taxawuñu ñun ñëpp ba li sëñ Touba bëggal njaboot gi mooy li sëñ bi bëggal njaboot gi ndax sëriñ bi sëñ Touba rekk a ko ñor zahiran wa baatinan ay jéegoom bu buy dox ak bu toogee foo toogee ci jataayam yàlla la lay wax yonent bi sëriñ Touba sëñ Mor Jaara waxi mag ñi jeex na doo fa dégg leneen kon nag ku am kilifa gu mel noonu te xam li nga am jàpp li nga jàpp na la wóor ne foo jëm da nga fa àgg insha allah te kon nañ bokk ñu nu ñaanal ko yàlla suñu borom gën a yàggal ab taxawaayam guddal fanam wéral ab cëram ba lépp luy yéeneem ci yoon wi suñu borom defal ko ko nu kawe njortam ci barkeb mun na ala qaari idil xurufi bi ma yafuqu danna min maaruf wa sallallahu ala sayidina wa maulana muhammadin nabi lummi wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa sallama taslima